faut, il, faut, il faut vous laver les mains tout le temps. C'est important. général général général mais c'est pas easy virus grippe

c'est pas facile c'est pas facile du tout il faut il faut connaître sa am di loxo loxo et puis et puis di c'est pas c'est pas facile depuis depuis mercredi euh, mardi je suis très très fatigué je suis fatigué weekend mais encore fatigue général wa hôpital bàyyi nañ may maa ngi nekk isolement sama kër et tout di jël garab yi di jël euh, traitement bi et tout di ñaan yàlla yàlla dindi ko incha allah c'est c'est c'est pas c'est pas facile euh, euh, je peux pas aussi répondre à beaucoup de questions ñu may posé parce que ma force ma force noonu bu baax dafa <coughs> yomb dara c'est c'est pas facile fii tubaab bi fii ak ñëpp ñëpp sonn

bangalal sa bakin wala dara ba duggee ci sa poumon yi lay dugg tu boo naanu lay ndox te ba daan boo duggee ci sa poumon yi da ngay sonn da ngay sonn lool là je suis fatigué da ngay sonn c'est c'est c'est c'est c'est épuisant instant bi maa ngi ressentir benn fatiguement général sa articulation lay japp et puis ak sama digg ginnaaw dafay metti et tout da ngay sonn c'est <coughs> <coughs> <coughs> c'est c'est fatigant en jalo sutra rek jalo sutra virus dana comme virus comme grippe comme grippe ak palu ñoo ñoo yem comme ñoo yem comme grippe ak palu mais lu bees la et puis kenn xamul lan la quoi yàlla rek moo ñu suturaal incha allah ngeen ñaanal ma rek yàlla baax na ñi tëdd tam ñëpp yàlla leen yàlla yëkkati ñëpp ñëpp ñëpp tout le monde dans le monde entier yàlla leen yàlla yëkkati Sénégal tamit yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen sutura ba nga xam ne ne virus bi dafa propagé comme comme ça euh, ni ñu def saa na ñu tëj école yi tëj yëpp arrêté manifestation yi comme ça ku nekk toog sa kër et ba lii ba lii jàll incha allah si jàmm ak salaam ñaanal ma gudd fan ñaanal yàlla may gudd fan pour sama njaboot sama njaboot soxla nañ ma néew doole yi soxla nañ ma maa ngi bëggoon tabax daara incha allah yàlla ma yàlla may ba ma def ko incha allah moo nekkoon sama xel avant may feebar. maa ngi bëgg tabax daara for ñu fenn foofu Sénégal mais Kaffrine maa ngi doon xalaat def ko Tambacounda wala Saint-Louis wala Touba yàlla ko yàlla yàlla yàlla may gudd fan ba ma egg foofu ba def ko incha allah neexee yàlla ñaa toog fii ba wér naa ñëwaguma Sénégal léegi incha allah mu neexee yàlla maa ngi nuyu ñëpp di di sargal ñëpp allahumma amin jërëjëf